ah suñu invité bi nak tay di une grande journaliste di une grande artiste comédienne ku tudd Saint-Louis rek sa xel dem ci di également une femme qui est la synthèse de deux civilisations celle de l'Europe et celle de l'Afrique muy Marie Madeleine Diallo Adja Marie na nga def. maa ngi fi Mariam maa ngi lay nuyu bu baax di monsieur Lou di nuyu techniciens yi nekk de l'autre côté de la vitrine di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi di nuyu aussi les téléspectateurs et ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre sur les réseaux sociaux. waaw Adjamari, Marie tey moom dañoo bëgg waxtaanee ñaari point ndax ku tudd ndar xalaat ma di mat leen ñaari point yi nag koy si Sinyara, ak panal lañu bëgg tay. tey siñaara lañu bëgg xam ñan ñooy siñaara ndax seen juddoo tax ñu nekk wala seen taar moo tax ñu nekk siñaara ak sinyara fan la soqikoo te dégg naa ñu naan it siñaara yi ña nga logé woon si ndóonde kër xaar kër hmm. lan mo waral loolu est-ce que tubaab yee fa gënoon bëri wala lan la nan la demee waaw mbirum euh, siñaara dafa bokk ci civilisation ndar mais soqi ko ci époque bu dulura boo xam ne tubaab yee ñu moomoon ñoo ñoo ñoo ñoo nekkoon fii ci ndar portugais yi ñëw fi dem tubaab yi ñëw ñëw français yi ñëw dem anglais yi ñëw dem ba mujj français yi nag daal di ñu coloniser bi ñu ñëwee siñaara mi ngi soqi ko déjà sur la petite côte vers Joal portugais yi ñoom les premières signants étaient lusophones ndax ma nga juddoo foofu après mu wàcc Rufisque après mu wàcc euh, Ndar ak Gorée yooyu ñeenti euh, point ci euh, ci Sénégal ñoo mos nekk fii dëkk yoo xam ne signants dañ fa daa yëngatu fan la ñu jóge ñu ngi jóge ci mariage entre colon yooyu ak ñi nga xam ne ñoo fi dëkkoon ñu fekk leen fi mu leen doon woowee les autochtones ci jamono mm-hmm. loolu ñooñu nag du ñu woon n'importe qui de dañ daan ñëw fekk si buur yi ñooñu jël seen doom yi may leen ñooñu ñu leen daan may itam kenn du leen may ci matelot yi de ñi nga xam ne mooy ñiy xëcc buum ak yooyu dañ leen daan may ci officier yi buñ leen boolee ñoom ñaar nag ñu jur doom yi doom ju ñu jur mooy milaatar boobu ñuy wooye siñaara foofu la sëñ turu siñaara bi eh, soqi ko siñaara nag du dara lu dul madam en portugais señora moy madame mom lañ jël déformé ko naan voilà c'est ça jox ko si señora. señora oui voilà señora espagnol et portugais señora. madame. Mhm. kon kon comme comme comme comme nous ko kon. kon si comme nous ko vraiment comme nous koy ancienne capitale de la FFF la ce pas ensuite tard, beaucoup na sur les quatre communes. te pour cela aussi comme ni si gën important mooy que ne Siñaara n'est-ce pas daawul takk dara si baadoo doomu buur lay doon. ba pare ñi fi ñëw aussi si kilifa yi tubaab yi lay doon ñoo leen di boole seen doom bu ñu juree. mooy nekk Siñaara moom la wax daanaka métis tey bu dee tey dañu naan mét Siñaara kon daanaka xanaa ko muy métis rek daal. waaw métis lañu ay métis lañu. voilà ñu doon c'est des mulâtresses. métis entre tubaab ak nit ku ak nit ku ak nit ku ñuul. ñoom nag ñu ngi daan dëkk. la plupart ko Sindone. Sindone ñu c'est la déformation de chrétienne. mom la wax légui nak ba nga ni ñu presque Sindone c'était une sorte de bourgeoisie ñoom dañ leen daan xoolee sax ñoo xam ni dañu am benn élévation boo xam ne ndax lu ñu nekk ay doomu métis dañu am ay deretu tubaab nit ñi dañ leen daan xaw a yëkkati yëkkati boo xam ne mais ñoom itam ñu nekk ay nit ñoo xam ne temps yooyu nit ñi dañ daan jël buur yi buur yi dañ daan jël di dem de razzia di dem ci dëkk yi di fa jël ay esclave di indi bu ñu ñëwee fekk seen jëkkër yi si la bokk ñu ñëw jox leen ci ñu ñu ñu ñu yore bu ñu leen jox ñu ñu yore ñoom ñu fekk ñi ñuy jaay ñu ñëw négocier ba jënd leen pour les anoblir ay nit yu baax la ñu woon ba pare dañ daan béejoo ak góor ñi nekk ñoo xam ne dañuy am seen teraanga dañuy bokk ci ñuy importer ay ay verroterie ay yére ay soie di def ay échange ci mhm. diggante ñiy wàcc bateau yi ak ñoom ku ci nekk gom arabique bi moo nekkoon Ndar échange yooyu si ñaari dañ taxaw taxawaayu góor di liggéey li ñoo liggéey mu am ci nag ku ñu gën a ràññee ci Ndar moo moo tuddoon kati ki no Marie Labouré Marie Labouré Marie Labouré moom lañu ñu gënoon ràññee ndax moo ëppoon ay esclave moo ëppoon ay bateau boo demee ci Rufisque ñuy ñuy wax euh, Katie, la señora Donna Kati moo daan euh, waaw moom boo boo demee Gorée Anne Pépin la ñu lay wax donc noonu la c'était de grandes dames euh, ñu doon tenir le haut du pavé nekk ñoo xam ne dañu riche bu ñuy bu ñuy génn nag hmm. dañu rafetoon mooy taar bi nga wax dañu ah. rafetoon ndax xam nga doo métis nag day day daal di am taar du ñaaw donc ñoom dañu daan jël seen richesse yëpp solo ko seeni esclave ndax esclave yi ñoom dañ dem ba anoblir leen def leen dindi buumu njaam gi ñu leen teg jënd leen ci ñee ba pare dindi leen buumu njaam ne leen yéen gi ci kër gi ak ñun ñoo doon nekk seen dame de compagnie donc bu ñu dee génn dimanche bi di dem église dañ leen daan solal def ba ñu rafet daal di jël seen parure yëpp ku nekk danga daa woon sa morom li nga ko ëppalee ci ci ci ci ay takkaay ak yooyu <laughs> jërëjëf jërëjëf Adja Marie